fii opposition waru fi am dara je ne suis pas contre l'opposition moi je suis un grand démocrate mais man li ma bëgg ci li ñu président tagat moy da ngay ñëw né man buma ma assemblée li lay def ñun ñu ne la li lañu commencé wona a def fi lañu yem fi lañu bëgg jëm mais man de batay ji déggaguma benn programme ni benn projet boo xam ni opposition bi am na ko cela veut dire en clair mooy jox leen ñu assemblée ñu bloqué réew mi bloqué réew nag jiguñu baaxul waa Sénégal duñ ko nangu waa Dakar duñ ko nangu waa Plateau duñ ko nangu je vous remercie